bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin nabiyil ummi wa alaa aalihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim tasliimaa mën ngaa gën a wàññi wàññi écho bi ak baas bi tuuti yokk maa ngi nuyu mbokk yëpp yëpp ñu ma fekk ci baas baas te di leen sant bu baax di nuyu di tàmbalee nuyu bi ak ziar bi xam naa ñu jottaleel ma ko mooy Cheikh Ahmadou Mbacké mi ñu fi fekk mooy Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Cheikh Cheikh Moustapha Basir min fi fekkoon ci baas bi te amul yéene lool mu toog fi ak nun ay minit yu gàtt gàtt waaye xam naa ne moom it yéene àgg na fa waaye ak jot moo ko mayu mayu lii nag di daje boo xam ne daje bu am la di nuyu sama bokk bokk jàngkat yi nekk ci ginnaaw di nuyu sama bokk soxna yi di nuyu ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi ci ci baas baas bi te ñooñu day yàlla li fi rafet lépp ci ñoom la waaye ñi nga xam dañ ciy def seen i xel ak seen i seen di nuyu suñu mbokk bii di sëñ bay mi nga xam ne moo doon ubbi jataay bi di ko ñaanal yàlla suñu borom borom ko jàppale te gën ko defal barke lii nag wax na dëgg jotaayu bu am solo la jotaayu barkeel la jotaay la boo xam ne da ngeen koo def ci weeru rajab wal bëtiku def ko ci weer woo xam ne dafa sësee ak màggalu maam jaar muy màggalu Poroxaan di ko defalit sëñ Tuubaa te lépp lépp di sant yàlla sant yàlla moom mooy jaamu yàlla boo xam ne bu ko nit ki defee amut ab sunu borom defal rek loola sunu borom defal rek nga delloo ko yàlla wan ko ne ko yow rek ndax faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun yàlla nee na fu ngeen toll dee leen ma fàttaliku yàlla daal bëgg koy fàttaliku ab jaam bi fàttaliku sunu borom yàlla da koy bëgg waaw ab jaam buy fàttaliku sunu borom yàlla da koy bëgg wala takunu kalladina nasullah fa ansaahum anfusahum yàlla dafa ne bu leen bu leen bokk ak ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla yàlla kenn du ko fàtte fàtte yàlla ab jaam jaam fàtte fàtte mu ne su ngeen ko defee yàlla da leen fàtte fàtte lii nag mooy fàttaliku yàlla ndax boo dundee tey can-can jékki ba déwénaat nga soog a duggaat ci baas ñuy waxtaanaat sa xol di set set ngay dégluwaat ay jàng day mel ni kon dekkalaat na la yéen ci yow loo xam ne day nelaw nga nit dafa am lu nekk ci biiram day nelaw léeg-léeg yu mel nii nag day yee liy nelaw ci biir nit loolu nag su yeewoo su dajeeg li ñuy wax wala mu dajeeg li ñuy benn li ñuy jàng wala lu baax li ñuy wax da cee dal di tàmbali nag di ca defaroo di ca defaroo te nit du xeeb boppam ku nekk rek yàlla waajal na la waajtaayu mooy sëkk yonent bi nee na ku judd rek mën ngaa doon wali maanaam am nga fitra salim juddu nga ci juddu bu baax mooy kon mën ngaa doon wali waaye nag nee na sa baay ak sa yaay nag mën nañ laa doon loo ab majus mën nañ laa doon loo ab ab nasaraan ñun nag nag judd ci keppaaru Sëñ Tuubaa fekk fii yoon wi nekk nii ñëpp xam xam ne yoonu murit yoon wu am solo yaakaar naa waxoon naa fii daaw ne ak murit bu baadool yoon wu am solo la murit lu neex la ndax daa noppale lépp lu def daaw ci yoonu yàlla Sëñ Tuubaa da ko xëcc xëcc ba mu jege ba mu neex a neex neex a jot neex a am lépp loo fi gis rek yàlla rek rek can-can yi ñuy def def nii wut yàlla rek a tax yàlla yàlla nag fu ne mënees na ku faa wutee sooy sooy des kër Sëñ Tuubaa ku fi wutee di ko am ndax yàlla dafa ànd ak Sëñ Tuubaa ba yàlla dafa ànd ak Sëñ Tuubaa ba tax bi Sëñ Tuubaa dugg ci biiram yàlla dafa dugal Sëñ Tuubaa ci biiram ko bana bi Sëñ Tuubaa dugg ci biiram kon Sëñ Tuubaa moomu nag fi mu ne fa la ab taalibe bi nekk nit day jàpp ne dafa teqal ci koog yàlla déedéet kenn kër teqal ci koog yàlla seetal rek boo toogee di xalaat suñu borom borom ñun ñi ñëpp ñëpp ñu bokk ndoo toog di xalaat suñu borom waa Dakar gépp ñëpp bokk di ko xalaat xalaat waxuma la toog toog di ñaan yàlla waaye xalaat yàlla yàlla wax waa gépp di ko defa defa toog bitim réew gépp di ko defa def ñëpp ñëpp maase kon kon 4 milliards ci ay ay ñëpp ñëpp toogandoo di xalaat xalaat borom fi mu ne kenn ku ci nekk ci ñoom kuy wax ne sans xalaat gën a jege yàlla wala man la gën a gën a gën a dégg wala a yëg yëg ci kaw kaw tolloo ngeen di xalaate yàlla lépp dañ lay doon ci yàlla mi ngi mel ni kenn kenn ki koy xalaat ki ñëw di wax yow ci ni nga koy gën a déggee ak fukk yuy wax ak yow ni ngay déggee nit ki man koo tont te xam ne lim lay wax soxla la wala muy sa soxla yow ngeen di wax ci waxtaan noonu mu mel noonu la lépp meloon na suñu borom moo tax kon ci àll ci àll xam-xam sunu borom moomu nag bu bu jaam bi di yéeg yéeg ba ak ci moom ci fenn fi da koy wàll yenn yi nga xam ne lu dul lu dul bind yenn mbalaan yi nga xam ne sunu borom du ko jox benn jaam loolu rek la nga waaye lu dul loolu moom nit ki dana ko bokk sunu borom yërmande da koy bokk yàlla yàlla yàlla bismillaahi rahmaani rahim yàlla mooy borom yërmande waaye yaa ma yaa ma <coughs> yaa ma yaa ma yaa ma yaa ma yaa ma irham dem xalwa kooku kooku yërmande amul yow yàlla yàlla xam ne yaa moom jaam ñëpp ñëpp maa ngi lay ñaan nga yërëm jaam jaam ñëpp kooku kenn kenn yërmande léegi léegi nag pour nga dégg ko dëgg dëgg da ngay fekk fekki wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yonent bi yàlla yàlla ko yërmande tax mu yónni ci kaw suuf lii bokk na ci yërmande ndax ndax jaamu yàlla gi jafe-jafe jafe woon maanaam maanaam toog di déglu lu baax wala ngay say nopp di ko déglu sax di ko dégg lu jafe la waaye Sëñ Tuubaa tax na lépp yomb yomb ba noppi jege jege teg ci li may faral di wax léeg-léeg li may faral di wax naan loolu mu ne barakati waa siatin wa baaxee baqa mumkin si ne bayi safi maanaam sama barke Sëñ Tuubaa nee na barke dafa yaatu loolu dañ àdduna bépp ku góorgóorlu rek am ci gis nga màggal gi nga gis ñu di ko def Porokhane lépp ci barkib Sëñ Tuubaa barkib Sëñ Tuubaa ci la ci la bokk Seex Umar Fuuti Taal dafa ñëw Mbàkke di gane si Maam Mor Anta Sali Mbàkke bi mu ñëwee ne ko Mamar de yaa tax a jóg ndax yàlla nee na yàlla maa wax ne ma yow yaay jur ki nga xam ne mboole ma des ci xeet xeet si Muhammad mooy seen kilifa mooy wutu yonent yàlla loolu la loolu la Seex Umar Fuuti Taal wax wax sëñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke mii woy yow Seexu Seexu Abdul Xaadir bi mu ko ko waxee ba noppi Maam Mor Anta Sali gana lekk gan gu neex ci Mbàkke bool waaye ku ne xam nga da ngay am ay soxna soxna yi ñëw nuyoo si soxna Maam Anta Njaay Mbàkke nga foon ca ndax moo fi jiitu soxna Jaara Jaara soxna Jaara bi mu dikkee dikkee yoo la ko Seexu Seex Fuuti Taal wax ne ko yow mii de yaay jur koo xam-xam bu wàcc barke barke barke wàcc Mbàkke te dootu ah léegi nag kon barke boobu nga xam ne boobu sëñ Tuubaa ganeegul jamono tey jii mu àgg ci suñ ne Porokhane ñëpp ñu walwale léegi da ngay xam ne mooy sabab si mooy sëñ Tuubaa bi bi bëggee dikk jamono tànn soxna jaar soxna jaar yi fekk suñu borom tànn na ko boole ko ci a bokk ci ñi ñi gën a yiw ci àdduna jigéen ñi gën a yiw ci àdduna waaw ah, ah. xam nga ñi gën a yiw Mariama ci la bokk Mariama mag ma Sayyidatuna Mariama la bokk Xadijatu ci la bokk Asiyatu ci la bokk Fatima bintu Rasulullah ci la bokk yonent bi nee na kat ñeenti jigéen ñii ñooy les meilleures mooy mooy les meilleures des femmes du monde ñoo gën gën jigéenu àdduna bépp loolu yonent bi ko sala sala ci classe classe soxna jaar jaar lay ñëw ñu tuddee ko Mariama male male doomam ju géemaane ja tax tax kii Mariama la suñu doomu ju kéemaan ji tax kële fanweeri at rek la am ak ñett suñu borom def ci moom lu bari bari doom ji fa yàlla dogal dogal kii noonu noonu fanweeri ak ñett ñett dund ci kaw suuf suuf wala lu mu ci teg bariwul waaye tey seetal bi mu nekkee ndaw ndaw am benn benn benn doom muy sox muy maam maam maam jaar jaar maam maam maam Mor jaar jaar maam Mor jaar jaar bi ma bi Cheikh maam Cheikh Omar Fouti di gane si kaw fekk na gane boobu at moom dañuy wax ne dafa judd mag ñi dañ ko tuddee Cheikh Omar Fouti daal Cheikh Omar fa dégg rek moom tuddee terale ko kon kon euh, euh, sëñ Tuubaa ay mbokkam xam nañ ko yëg nañ ko njëkk ak gane jamono kon kay nëbbu léegi nag mu ñëw nag ngir war a gane si jamono soxna jaara nag da ciy da ciy def da ciy def da ciy da ciy def maanaam aw aw anam anam boo xam ne da ci joué rôle boo xam ne ci ni nga koy gën a gaaw a déggee rek boo xam ne mu bu mucc ayib ayib la mooy nit yàlla ku mel ni sëñ Tuubaa yor yor ko comme ni jigéen di yoree doom jur doom ji di ko nàmpal di ko def def bot bot def yooyu loolu lañ tuddee yor maanaam ku mel ni sëñ bi nga yor ku mel noonu dafa jafe-jafe ndax lu tax mu jafe mooy dadul nuroog ñoom te doon ñoom maanaam dadul nuroog ñi nga xam ne ñoo baaxoo jigéen di ko jur di ko boota ka nampal ka dem teen bàkk doon ba noppi bokk ci ñoom ndax nit la mi ngi mel ni mel ni sa sa nit la ndax bu ak nit du am du doon kéemaan maanaam nit boo ne boo ne du ndax lu gën lu du kéemaan moo tax yàlla yàlla waxee yonent juif yi ñu wax lu tax seen yonent bi di dem di di yor ay dugg di yor ay soxla yàlla ne waaw waaw loolu tax mu gën a mat parce que bu fekkoon dafa nekk nekk malaaka bi kon du ko kon kay du am problème ah, ah, na nii mooy sëñ Tuubaa bu fekkoon bu jëm ñëpp la kon kon kimtaan yi amul problème waaye jëm nit yoo xam ne mën na lu kenn kenn def na lu kenn def wax wax xam xam waxu loolu loolu mooy kimtaan a sa sa iqtarabat shaa wa saqal xamar doon nit taxaw fii waa màkka ne la su dee da ngay yórit wan ñu ay preuve nga yóotu jant bi teg sa loxo ba xar bi la <laughs> yàlla yàlla ko dëkk màkka teg ci xam yonent kon kon dafa fekk rek nga am tawfeex suñu borom fi ne boo gisee koo xam xam da nga naan xëy na du taalibi Serigne Touba bu ko yedd yedd waaye yow melal lu tax tax bu taxut yow ngir bu gàtt xam ne Serigne Touba bu borom borom noonu la ñuy sañu si ab si ab Serigne soo soo doonee taalibi Serigne Touba bu gëm Serigne Touba képp koo gis ñu ne diw de moom du taalibi wala diw de dafa bañ bañ Serigne yow sa jëm bopp yow melal loo xam-xam yi di jaxasoo moom day dem yàgg yàgg Serigne Touba de am ndax yow ci sa jëm bopp yaa ngi wan ne Serigne Touba bu borom kooku nag noonu la maam jaar jaar njëkk a def ci Sëriñ waa mooy mooy daf ko yor yor gis gis dégg dégg ni sëriñ sëriñ def mu dem wax wax ko amul soxna maam maam Ahmadu soxna soxna mu daan ne ko ah ah doom di lañ daan wax ne buy def nangam def nangam du ko jik ko jik mu ne ko xaw ma jan jam lay def day mooy def loolu di dem waaye sa doom jibi ci bokk sa doom jibi ci bokk dana def ci kéemtaan ba noppi ba nga yëg ne def na fii waaye dana dund ndax yàlla yàlla waajal na ko ba noppi léegi nag léegi nag soxna li mu ko suturaale ku mel ni moom mën naa ñàkk soxla aw weer da ngay dégg ki nga xam ne moom dëgg la la ku mel ni moom mën naa nam mën naa ñàkk nam waaye doo demee ci nit ñi naan sama doom ji naan sama doom ji nangam ak nangam ci ci commune ni sëriñ dal dala fay bàyyi bàyyi moo tax ma ne nag suturaal bu mu ma suturaal loolu taxul ma wax naan sëñ sëñ Tuubaa di wax ne soxna jaaram mat na day ku ne ku ne maanaam bu fekkoon ca jamono yonent yi jeexagul tamit mën naa juróom yonent waaye fekk fa nag ndab lu seen wecc muy soxna si jëm bopp yar yar ko yar ak jàngal bi ko jàngal ku ko yar diggante way juróom diggante way juróom ak ak way juróom bu jigéen jigéen góor ak bu jigéen ñoom ñëpp di ay borom yi xam-xam ndax kuñ ne tey sa mag wala sa sarak nga di ci natt ku mel ni sëñ Sow bi mii tëdd Mbàkke nga xam ne dañuy wax ne xot bu samaan la doonul am mufti teg teg waaye ndax xare na ci àdd mooy sëñ Tuba ay bokkam dañoo dañoo jàmbaare man am xam-xam xam ba nu ba nu xeex xeex loolu nag taw feex feex la ndax ñoom ñëpp demoon ca jiyaat yi ba jox ba jeex te jiyaat moom ku ne xam na ne da ngay rey bàyyi ñu rey la rek waaye nekku ne woon di tëdd tëdd di tëdd rek déedéet te dara dara doon seen digganteeg teg seen alliwa ya di jàng di jàng dara dara doon seen digganteeg teg bay bay luñ dunde ndax boobu barke yi xew xew barke yi mu suñu bokk yi dañ daan jaamu yàlla yàlla dafay déggee ñu naan am na benn bés boo xam ne soxna si da daan daa baaxoon a toggal seen maam war a andi sa li laax benn bés nag mu defar ko ba noppi ndekki te sëñ Momar génn génn mu jëm ca tool yi tool yi daawul sori nag bu ko jàppee tool yi léegi ndax loolu doon tool yi sori booba mag ñi bay lañ daan def def yoonu sori sama waaye dafa fekk fa ca tool yi di ko yóbbu yóbbu loolu yëpp lu muy wane mooy pëstes bi mu amoon mu nekk ci kër gi ak mu ñàkk nekk ci kër gi la yemale comme da ko def ngir yàlla rek fu nekk nekk yóbbu yóbbu gis ngeen gis ngeen sëñ sëñ bii woy xasidaam gii daf ne bi ñuy jàng ci maam Mor Anta Sali nekk ay donga dañ doon wax ne maam maam jaar de bu baax baax xam nga dongam daara léeg-léeg day def yëf yoo xam ne dala ci natt ba xam yow liñ lay tàggee loolu lu wér la ci yow wala wér ci yow wala mu xool ba ndax mën na laa naqaral wala déet dégg ngeen ko benn bés bu mu rootee ba noppi dong dong fil fil ndox mi ndox mi daal daal di waaye lu mu ko wax daf ne ko ah satala sëñ bi ma ci doon duy de moo ma ci xaw a jaax cap cap waaye bu doon loolu de loolu dara du ci naq dégg ngeen ngeen soxna soxna aswaal da ko jox caq caq caq la ko joxoon bi muy dem kër kër caq boobu dafa def ba mu lool mu mujj jaay ba mu ko jaay defu ko dara lu dul bàyyi bàyyi ci biir néegam di ko te di ci def ay ay ay ay ay yooyu mag ñi daan daan naan naan bett sa borom kër léegi nag la xewi xewi waaye mag ñi dañ daan def def Euh, la soowum yor yor sipp lañ daan def sipp sipp fi ne fii ñu ko denc yi da ngay dégg ñu naan xaritu përëm lañ fi denc waaye xam nga l'histoire tamit dafa neexu neexu léegi dañu ne àgg foo xam ne bëri na loo xam ne boo ko nekk de sax dañu jàpp waaye fii soxna jaar tëdd ay am na wax nañ ne am na xarit xaritam boo xam ne xaritu përëm la woon dafa waxoon ne bu ma faatu nañ ma denc pegg soxna si xaw ma nag fu ñu ko fa denc waaye mi ngi foofu ci armée am na ñeneen ñi yoo xam ne faatu fa ñu denc leen fa armeel sëñ Moussa Ka mi ngi woy juróomi mag ñu baax ñoo xam ne dañ faa dem bàyyi sëñ sëñ si bi xabaar ca la bokk foofa des kon ay barab la waaye tey nit ku baax ki mu doon tax na tey mu ngi mel ni moom rek lañ fa def waaye ndax yàq nañu fa ne kon déedéet yàqul seen si yàqul seen dara ndax ñoo ñëpp ñu ngi ci am jàpp moom nag mas naa toog ba mu yàgg man de ni ma nim see proxaan yi bu bu nit ñi nibbee soxna jaara waxoon xam nga lu tax mooy jamono booba maba jox ba bi muy xare daf ne mag sëriñ si ñëw leen fii ndax su ma dalee ci kaw tubaab bi tam xam ne damay xare ak yéen ci xeeru xeexu lislaam day dal seen kaw xoolal boobu xel mu rafet léegi nag mag ñëpp nag dal di ñëw foofu bëri bëri nag kaa ngi bëri njàngam alxuraan sëriñ su baax sax loolu taxoon na soxna si daan wax ne man de ni ma nim see ëllëg ëllëgateeg si biir dëkk bi gàtt ndax bëri macha allah mag ñu baax ñu fa nekkoon te booba fekk nag maam Balla Aïssa ca ba ñuy dem ca njëlbéen ga fekk nag waaye booba dafa dem ndax magee nag waaye waaye mu nee na man dinaa leen dinaa bàyyi sama doom mu dem kon soxna jaara buñ toogee ba léegi ñu di ko defal defal bés bés lu yel yel ndax ndax shahid la maanaam daraje shahid la shahid la shahid mooy koo xam ne da ngaa tool da ngaa faatu ci toolu xare waaw fi mu ne attab nit bu sahiid mooy loolu sidna Omar ni nga xamee ne bi ñuy xare Badr demut demut ndax lu tax ñu ne soxnaam moo tawato waaye terewul lañ fay amee yonent bi daf ne dañ ko ci jox fi ni mënoo xam ne demut doon a déet buñ buñ leen di waaye dañ ko ci boole mooy kon liggéeyub yàlla boo ci nekkee fi ni nii lii ñu nekk ci baas baas bi subaa bi di daw di góorgóor di kër kër fi ne yàlla tere tere waaye ku ci jóge woon tey jii ñàkk ci sa bakkan te liggéey bi tax atem ku sëy sëy di atte atte demal di nga jàng xadis bi wax naan man xot la doon mali wala ahli soo demee nga seetantal xadis ba daf ne nit bu fekkee dañ koo rey muy défendre ay njabootam nit bu fekkee dañ koo rey muy défendre alal nit bu fekkee dañ koo rey muy walloo nit far ñàkk ca bakkan am beneen xalis bu dikkat daal ne nit de bu faatoo ci tawat bi ko bett tëdd guddi lu mel ni kiris yi dal nit ñi fi ko ci kiris tëdd dégg jullit bu wér sayit sayit kon kon li ma naan ñun dañoo jafe jafe-jafe jàng jàng dégg jafe-jafe ñun ko am pur waaw dañu ko am waaye ci lii rek ci la di amee ngërëmal yàlla ci la nit di àggee ci suñu borom wax na dëgg nit booy jëf dara dal ci fas fas mooy jublu gi nga jubloo def dara su fi ne soo toogal fee di jàng faatiha kenn toog fee di jàng faatiha ab yéefar ñëw ñu jàngal ko faatiha ba mokkal mooy muy jàng faatiha faatiha faatiha rek la waaye fi ne nii ki di jullit te jaamoo ko yàlla jot mu am yéene jaamoo ko yàlla moo ci ëpp yoon kon du jëf du julli ji julli ji ngay julli rek ndax ku ne mën naa julli waaye doona julli ba noppi di julli nag ba noppi waaye waxtu julli wa jot ndax su wax su julli wa jotut boo ko defee amoo ci benn julli ko baaxul moo tax léeg-léeg nga dégg kuy tukki daan ne une heure jot rek daan damay julli waxtu tisbaar jotugul nga ne damay julli déedéet waxtu dee su ko njëkk waxtu su jotoon tey jii nga bañ koo jullee sa kër dem ba aéroport fekk waxtu bi dem une heure de temps yaa ngi ci biir waxtu waxtu yaa ngi ci biir waxtu waxtu rawatina diggante tisbaar takkusaan mën nga faa toog ñaari waxtu ñaari waxtu mën nga ko fa am ba nag julli ko wala ba dikkuwaat julli tàkkusaan dugg sa bool dem sa yoon fas yéene tamit julli gee ak timis te boole leen ci waxtu gee mën ngaa dem ba ci sulusul aqi comme waxtu wi ñu nekk nekk ni kon diine dégg diine rek am bërki dem biñ daje fi ci Parcelles ay imaam daje na fi man leen man leen nun diine ni ñëwee ci ñun ñu jàngee ko yónente bàyyi fi téere téere xam-xam mag ña nga xam ne nag ñoo toog doon doon jàngale loolu loolu lañ tuddee daara boo xoolee kon fi mu mësa mënut a ñàkk day mel ni mënut a ñàkk ndax ku ne tey diine ji ni mu ñëwee ci yow dañ ko bind ne la lii mooy lii mooy julli lii mooy woor lii mooy nangam lii mooy détaillé la noonu la sëñ Tuubaa mel bi mu fi nekkee dañ fee bàyyiwu benn téere buy waxtaani sëñ Tuubaa benn téere mag ñi nga xam ne nag seen farlu bopp ñoom ñoom bind ci sëñ Tuubaa bind ci l'histoire am bind nu muy xëy nu muy gon kon kenn rawul ci sëñ Malaay Binta ku jàmbare la sëñ Modou bind na ci moom sëñ Modou Lo Dagana fekk na sëñ Tuubaa ba ba ba gabon gabon ndax du bi muy dikk sax moom moom ñu ànd waaye li ñuy wax ñun suñu nett li dañuy wax lu ñu neex rek bàyyi la ci des sàmbalo bi ko bu dara ci sëñ Tuubaa man de ba nëgë ni dama naan damay def defi ci kan nga ko bu dara ji fii wala ku ko gën a xam sëñ Tuubaa bokk sëñ tubaay joxe dara ak jullit la woon te sëñ Moussa bi ñu bisee géej waxoon na ne tubaab yi buñ gëmoon yàlla ñii nuy tudd di ma tudd muy seex seex li nu am nañu ko ndax nee na ñoom ñoo tax ba li mu bëgg di li mu bëgg wut ci yàlla moom tubaab yee tax waaye gëmoon yàlla loo tax ëllëg sens buñ gëmoon yàlla tey ni sëñ Moussa jaxasoo ñoom ñu di ko teg bët di ko xool muy jëf jëf ñu di dañ ko daan naw ba tànk yi ne gis ngeen mas ngeen gis dox bu mu doon dox yàgg benn tubaab di ko xool bu yàgg mu gis ne dox dox te tànk bi nii taxaw mu xool gis ne dàll wel makkanoon dàll nga daan sol ay dàll yoo xam ne suuf gi der lay doon def ñaari kii mbakkan gi rocc mu daal di jël ci seen tiram xet ci daal di takkal sëriñ bi dàll jox ko te tubaab boobu kat sëñ tubaab toog na njariñ ba mu yàgg lool ne na sama xel dem ci moom ak la mu ko defaloon nee na ma xool ko xool xool ko gisoo gisuma ko ma yër ko maanaam fi nga xam ne fa la ñuy xool ruux yi ñu texee ne gisuma ko ma laaj ko sama borom sama borom ne ma ba mu faatoo laa ko dugal aljanna ngir jëf-jëf la jëfa jëfa ah loolu dafa neex yàlla mooy boo boo bëggee ni léegi rek xaw ma kan laa ko doon waxat defe naa sëñ nangam saa ñu yi laa ko doon waxat léegi ci kaw moo yuhibbunaa gis nga bëgg boo bëggee yàlla sorut ab yéef sorut ab ab ab jullit bala ngaa dee di nga di nga gëm yàlla ndax yàlla sopp gi la dul bàyyi bàyyi solo bëgg lu am solo boo doon tey ne jaamu yàlla ba bañ yàlla bóot bala ngaa faatu yàlla suñu da nga bokkaal yàlla wala nga def tax sawar daal yàlla mu yàlla mu ci lool kon bëgg lu am solo la yàlla dana am xarit noonu la jàppee Ibrahima wa taxasallahu Ibrahima xalila yàlla dana am ay limaan yàlla dana am ay xalifa indi jaay ko ak naas imaama ak xalifa kon kilifa yi fi nekk nii suñ demee ba jàpp ne léegi kilifa yi nangam amul kenn du fonk kenn kenn du respecté kenn adduna tukki sëñ tubaab mbii nag li ko may nii lim am am xam nga xusnul xusnul mawaahiba la du niyaat wa innamal amal bi niyaat nee na fi ma gañe ñëpp mooy pas-pas bu dëgër ak yéene joxe ba may liggéey damaa damaa damaa yéene waale saxaaba ya am na nag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ku la nga doon defal rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom boole ma lim fay yàllaay fay tawut yàlla xasul ma la dul na ko na ko kon lan moo ko may mooy mooy pëstéef ak gëm rek loolu la waxoon maam Cheikh Fall dafa ne ko sa sa yéene ji yéene la ak pas-pas bi nga am moom laa amoon ma ñëwee dama ne su ma fekkutoon dara lu dul asamaan si xam naa ne doon na tiim rasulullaay rasulullaay daana teg tànkam suuf si lu saaba am dinaa ko ko kon kon sooy jëf-jëf taalibe day am pas-pas ak yéen xasuma loolu ma xamaati rija bil xat-xat xaa isan bi faw xam maram loolu kenn xamul xam doon maanaam sama mbind mi rek ci la ma sama borom fayee daraja foofu tamit dafa am ay sew sew bu ñu waxee diw am na lu mel ni bul jàpp ne du yàqal kooku dara waaye yàlla jëloon tey jii damay may kii diis may kii diis maanaam la mayoon ñële mën na la ko tegal téeméer yow jox la loolu rek la moo tax boo déggee léeg-léeg mu naan yàlla may na ma may gaa yu baax dem na ba àgg sax ne man samay jëfi aada jëfi aada mooy lan lekk naan nuyoo dem dem diisoo nit ñëw diis la soxla nga fajal ko ko nee na sama jëfi aada yooyu may jëf tolloo na jaamu yàlla yi sang sang dafa jaamu yàlla fekk ko boo xoolee tamit dëgg la ndaxte yàlla da ko faral Sëñ Tuubaa yàlla da ko faral ndaxte yitte yi jox suñu borom te ak jaamu yàlla gi mu daan jaamu yàlla ak melooy boppam ak jikkoom ju rafet ci ak ni mënoon a téye nit ak ni mënoon dimbalee nit ak ni ko nit ñi dawoon wut si ak tubaab bi ni mu ko bañee woon te taxul mu wan ko ne ko dama bañ di xeex ak moom jëlul arme jëlul fetal ngir ëmb yërmande jaam ñëpp ñëpp bëgg ñëpp ñëpp mu wëlbati ko di bind téere xam-xam yu dul jeex nit ñi di jàng ci ay ëttam fu mu dëkk def fay daaray alxuraan fu mu nekk ñu defal naa fi la alxuraan bëgg alxuraan gëm alxuraan teg alxuraan ca kaw def ko xaritam def ko yóbbalam def ko léppam te terewul natt yi ñu koy natt bés bu set set ñu ngi koy def ci jëmmam bu toogee ba yàgg ñu ne ko duful mu tuxu dem feneen te kenn mës a dégg mu ñàkk kenn mës a dégg mu xarab xarab yàlla mu ko teg natt yi waxuma la jëmmi suñu ba waaye tubaab yii natt yi jaar ci ñoom sax mosu leen xarab kon kooku da ngay xam ne xam ne def def suñu borom borom la def def suñu borom la yàlla def bu sampee nga bëgg loola mu def dalay bëgg dalay bëgg fi ne saxaaba yi am na ci ñoo xam ne ànd nañu yonent bi ca jamono yàgg yàgg boo gisee bu yàqu fuqara u saabirin lañu wax ak ak lansaar mi ngi mel ni alxawaar yi nii nga gisee ñuy tuddee ci baas bi naan waa xaw ma waa nangam ji ak waa nangam ji kenn ku ne ñu tudd kenn ku ne ku ñu tudd la tuddee law tur léeg-léeg dégg ko naan murit boo xam dañ ko tuddeew tur gis nga tuddeew tur na fekk rek nga dëgg dëgg nga it boo koy def ca lay am maanaam bu fekkee ne defoo ko ngir toppandoo defoo ko ngir roy defoo ko toppandoo su baax su dee da ngay toppandoo nit ku baax comme ça diw ak saa gis nga ne ak saa mi ngi jàng xasida nga di ko jàng ngi di ko toppandoo pour air bi mi jàng mais nag néewoo ne ak saa lim am dama ko yéene la maanaam lim am laa bëgg am loolu da leen bëgg jural xëccoo moom ak iñaan loolu mooy mooy mooy ñee te ñeetaani baax loolu la lay jural léegi nag su fekkee da nga ne man de dama bëgg xasida sëñ Tuubaa dama ko bëgg a jàng waaye diw ñi de yoon yoon ko jaar laa comme xale bi ñuy jàng léegi eeru kii Ablaye man bi ñu koy jàng yëg naa ko topp kon dañ ko toppandoo loolu toppandoo googu lu baax baax ndax ndax danañ xañ cër sëñ Ablaye ñu kon sëñ Ablaye ñu ma ko defoon tey ji bu koy ku koy yëkkati nga di ko dégg daal lii de yaakaar naa ñu doon benn benn lay muy di mbir balaa yëkkatiwaat noonu lañ toppandoo air boobu ba di ko daaj fi ne tey jii suñu borom day yeesalaat ay mayam ca moom day yeesalaat leer ca moom ndax ndax yonent bi moo ne ku sos su baax baax képp ki ko la ca roy ca lu baax loola nee na dama lay fay ni ma la doon fayee yow lu baax loola te du yàq dama leen di fay ñoom ñi koy def te du yàq sa fay lu baax dafa baax moo tax léegi lay wax naan sëñ Murtadaa nee na sëñ Murtadaa nee na nee na sëñ Tuubaa ni asamaan la mel jërul xëccoo jërul ñaan jërul naan diw dafa takk lii danaa sangu fee diw dafa jërul jërul yow jëfal rek te bul ges dara te xam ne yàlla mu mayoon maam yu njëkk yi xoolal tey jii ñaari junni at xurul wu sax xurul wu wule kenn xamul lan la ci am da koy wax yàlla kenn xamul leen fi ne borom xam-xam yi ulama asaar ñi ngi génn nit ñoo xam ne ñaari junni at at ci misra lañ woon di leen génne di leen génne seen or ya yoroon ak seen pale seen jën yi xoolal tey nga tabax benn tabax aram yi nekk yi nekk keer lan lañ ci doon def ak lan lañ ko tabaxee seen coono boobu xool suñ tabax yi tey jii ay septième étage huitième étage daanaka Dakar li fi gën a bëri ma amul fin ñu jàpp ne ñun xëy na ñoo supérieur ñooñu ci ci wàllu eh, tabax ak wàllu développement yi mel noonu déedéet ñoo leen gën a bari dëgg la ñoo leen gën a am xam ne xëy na xëy daal ñun dañ koo jàpp waaye ñooñu daanañ takk or or mu sa xew xoolal diine lislaam nga ne damay takk soxna ñu ne la demal rubu dinaar la koy jox or nga ne damay joxe asaka ñun la soo amee ñaar fukki dërëm nga ne damay nangam ñun la soo amee juróomi giléem wala soo amee euh, fukki ñeent fukki xar soo amee euh, euh, juróom benn juróom benn barigo soo amee nag lu ne limité la ko loolu da ngay xam ne am xelum xelum nit mënu ko loolu lañ tuddee sariya sariya nag da ngay gis koo xam ne da koy noonu sariya kenn du ko noonu sariya mi ngi mel ni sàkke bii aqiqa mooy li muy waxtaane ak mbirum sëñ Tuubaa ngóon yéen yu mel noonu war doon toog tey di lii nga ne mooy xaqi mais lii dafa dafa mu taxaw sariya ko téye te léegi foo taxawee bonam waa sariya kuy nangam ak yaa ngi sabooti sëriñ bi dam ne diinun siwa islami la yox mooy indal ilay wa bihi mu ne diine mooy mu jaddi mooy mu jaddi lislaam la loolu tax mu am sañ-sañu boole ngir yi boole wérdi yi boole sëriñ sëriñ boole lépp lépp te du ko yàq mbiram ci dara ay taalibe mën nañoo jël wér bu leen neex ay taalibe mën nañoo dem siyaare sëriñ bu leen neex te du leen yàqal dara waaye la nga xam ne mooy fuyo datu rabbaaniya bi leen di màndal seen xol moom sëñ Tuubaa la nekk sëñ Tuubaa li nga xam ne xam ci moom lay jógee di dikk ci moom ci ci nit ñi te dee defar ci moom lay jógee boo gisee léegi ku wax su yoo xabar loolu rek loolu rek leeru xasida bi ak digganteem ak Sëriñ Tuubaa ak ba muy wax ne man su muy bind damay toxalee aras bi leer la samay bind dafa am mbóot mbóot mbóotum laa ilaaha illallaah njubug laa ilaaha illallaah leerug laa ilaaha illallaah te kon nit ki bu dul bu dul taxawaal doo caaxaan def dara xam ne tëj nga say cër di góor góorgóorlu jëm suñu borom war ko bëgg sëñ Tuubaa waaye lu la bu la soo doxee doxee andi kat kat mën nga am daraja yoo xam ne kenn xamul daraja lam moo tax moo tax jër si ci gën gën jàng xasida di ñaari fan ñetti fan di net di gën déedéet dafa teel loolu la ñu wax irage irage commencé gis irage gis nga booy jàng xasida boo seetla ne dëggantaan booy dox léegi tey ngay tàmbali di gis loo xam ne boo ko nekk nit dana la déedéet fi ne mën ngaa dem ci dëkk ñu ne la kaay ñu won la ñi fi mas ñëpp dëkk dëkk nga teg nga teg te suba da nga ànd ak ñi dem seen yoon mën ngaa dem ci dëkk guddi jot nga dugg nuyoo nuyoo nuyoo guddi jot ñu ne la kër kër yi kër yi kër yi na nga boole ko ne ci yàlla moom man ngay dem ba mu yàgg loolu nga yëg li diw diw sàngam mii ni ko def ci kaw si ko bari te loolu nit ñaa ngi koy yëg te duñ ko wax wax moo tax sax Basiiru newoon rahmatullahi alayhi nee na wilaaya nee na dënn ba ko sa borom def du ca def jàmm ñu koy wax te nee na mbóot kët kët mi ngi mel ni mi ngi mel ni nga gis dara ba noppi war koo mën a faj te doo ko fekk moo dañ ne ñi gën a àgg ci suñu borom léeg-léeg da ngay dem da ngay gis koo xam ne ci misaal ci ñun ñii rek ki la gën a gën ki waaw sëriñ sax sëriñ bi la gën a àgg ci yàlla wala benn sëriñ tey nga dem ci moom bëgg ci moom dara mu mel lu jafe lool nga dem ca kam dénk magasin ba mu daal di ñaan ah xaaral ma jox la benn saako te boobu kenn yëkkat xam nga sëñ moom doon joxe naa ah, ma yëg yëfu kër saako jaarale ko ca ginnaaw mu yëngu saako maanaam génne ci kër gi rek ci ci misaal kër gi nga taxaw ku fa liggéey fii ne ba ngoon jot boo wàccee nag yóbbu teraanga te moo ne fii ne sëñ mën la ko bañ a jox mën nga ni sëñ bi fii ne du joxe te fekk sëñ bi ki gëm gëm te xam ni suñu borom di joxe day xam ne ci loxo suñu Muntaxa rek ñu ko jël noonu la nit di déggee suñu borom mooy ku ne fi nga fi nga jébbul fi nga jaayante ak foo mën a lang rek liy dikk di wàcc ci nit yàlla moom sala sala di jaar ci suñu Tuubaa di di jaar ci sa sëriñ di ñëw ci yow lépp lépp sal moo tax ko xam suñu Tuubaa dëgg dëgg jarul jarul jarul xëccoo jarul xuloo jarul dara yow baax rek foo nekk rek foo nekk rek nekk na suñu Tuubaa tax nga di ko rek takat moom dafa woote pour ñu liggéeyal ko sëñ Tuubaa moom dafa woote pour ñu liggéeyal ko ba pare mu ne ku ma liggéeyal sama borom fay la ba benn bés bi bi ko sunu sunu borom yebale si naaj ji wax ko ci njaareem ci njaareem mu mu defar war gam boobu defar ko jox ko am ngeen lu ma si tuuti ñu ne ko déet mbàkk mbàkk tànk daan wax ne sëñ dégg nga sëñ daan ne dañoo demoon ba jàpp ne jibril waxambaane mu dëkk njaareem ndax léeg-léeg nga dégg la si naaj ji yàggu noonu sama borom nee na naa ma ki nangam mu daan ne leen sama borom dafa yónni si Jibril ne ko neel neel Xaadimu Rasuul ku ko liggéeyal ma fay ko ma bëgg a liggéeyal sama bopp ngir mu fay ma kon kii liggéeyal Sëriñ Tuubaa nga gis it ña daan liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku ma sa gërëm ca loola rek ca loola la topp ba nëgëj ña ko toppoon doon jëfal nun de fekkuñ leen fi ñoom raw na waaye seeni seeni doom xëy na sax am na ñoom fekkuñ leen fi waaye ku gis seeni doom képp xam nañu ñoom ñu mucc ay ki lim doon wax léegi dafa am suñu benn mbokk mu ma jege lool sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Aysa lañ ko tuddee sëñ Ibrahima Aysa Mbàkke mooy Mbàkke Mbàkke yi sëñ Tuubaa mujj tër bi ñi mujj tër bi sëñ dafa bëggoon a dem Touba ba am ko waxoon ne ko waajal ñu dem dama sama dëkk dama a dem ko waaj yaa wut yaari fas bi ñëw sëñ Touba daan ne dégg naa da nga bëgg a dem Touba mu woo kooku ne ko la ma doon waaj ak bàyyi bàyyi ko mu ne ko foo ko déggee mu ne ko nasaraan bi wax na ma nee na nee na dégg na yëg na kon ginnaaw yëg na ko a dugg ci kaw suuf si ndax xamul ko mais tubaab bi ñu ko laajee laajee wax sama sama xaalis sama ko kon am na ay avancé kër ñoo xam ne ci kër sëñ tubaab lañ nekk te mënoo xam ne ñii tubaab bi lañ fi nekkal wax ko léegi nag benn bis mu yónni ku ñu wax si ñu ne ko Ibrahima mu ne ko mbàkk mu ne ko kaay demal ma ci sama dëkk bekk Tuubaa sëñ Ibrahima moo ko wax sëñ Saam sëñ Saam moom moo nekk mi ngi Mbàkke gii mu dem wër wër wër wër wër Tuubaa nii boobu xam nga xam Tuubaa tey jii ay ay ay dimb ga fee dimb ga ca Daaru Xuruus dimb ga ca Daaru dem fee wër xay ga fee front wër wër wër ak ci garab garab googu di guy gi boobu indeeguñ ko fi ko fi daal di ñibbisi bi mu ñibbisee daa di kuri daal daal di daal ci mar xam naa bi ju sëñ bi suñu liggéey ba noppi wala diggante diggante waaye mar mar firi loolu nee na ci mar nee bi sëñ bi Ibrahima ñëw ñëw ko waa Mbàkke ñëw naa de dem ko ba ñëw mu ne ko waaw sëñ bi daan ni daan ni ko daan ni ko alhamdulilah daan ni ko Ibrahima xam nga lu tax ma ma ma xam nga lu tax ma di leen yebal sama dëkk bee di Tuubaa mu ne ko déedéet mu ne ko damay toog ba ba dootuma ko mën a ñàkk gis su ngeen fa demee nag bu ngeen ko xoolee su ma leen xoolee rek dama ko gis waaye bu wax ca nag mu yëpp daan ni ko Ibrahima nag Ibrahima nag xam nga ni gis sama jëmm gis sama jëmm wecc na ci jàmm yàlla juróom-yaari at jaamu yàlla juróom-yaar yaa wecc na léegi nag nit ki ko dégg loolu ñu nekk ko te xamul day naan kon jarul may jaamu yàlla déet waxul loolu de kii jaamu yàlla bi góor-góor suñu borom fay ko gërëm gërëm soo gisee Sëriñ Tuubaa te nit bi bëgg ko kepp suñu borom dana la ca fay toll toll la moo tax nga dégg ñu naan kooru ngàtt yéen ci bi ne ku woor bis bu arafa mu far la sa bàkkaar ne far la sa bàkkaar ne dafa ëpp doole koor ëpp ko doole waaye diine mel noonu te benn benn yàqu ci sa morom waaw ndegam nag kooru gàtt ngaa mën doon asamaan jëmmi ko mooy comme ndegam gis sëñ Tuubaa mel noonu waa ko doom bi mu jur la waa taalib yi mu yaral bopp nag ba defal ko bopp kon noonu moo tax ku nekk ci moom da ngay góorgóorlu rek da yaakaar naa daane nekk naan bi ma ngi toogee ba mu yàgguloon ñu xalaat xalaat nit yàlla yi borom daraja jamono sëñ Fall rek dafa am am maram ma fa xewoon sëñ lay moo ko nekk lay defe naa mi ngi dund mag la mag la mag lay moo nekkoon directeur Alassane bu ndaw kooku moom moo ko nekk ma dégg ko jamono sëñ Fallou maram dafa am maram mooy dafa jafee taw léegi ñu dem wax ko sëñ Fallou bi bi bi yàlla dogalee loolu daal di sotti sotti ndax ma taw a taw a taw mu daan waaw daa ne leen daa daa am koo xam ne kii xam nga téere yi bind nañ ko daa am koo xam ne kii ca jamono yi ca jamono yi jamono yi Seydina Abu Yasid dafa dafa ko fëggoon lool bi mu ko bëggee nag yàlla dogal dëkk ba mu dëkkoon ñu xaw koo xeeb xeeb biñ ko xawee xeeb xeeb moom itam itam muy def lu ko neex di def lu ko neex ba benn bés mu mel ni ku màndi tëdd fee mu romb ko xool ko daal di koy def dem kii mu romb ko dem ñu ne ko am ah, yow yow yow yow yow kon yow bi si naa jaare fii fii di la kii ko dé mu ne déedéet ñu ne ko jaar na fii def gis la sa tëdd di wala wala moom moo jël téyam yëpp fomp la mën a seet mu ne ndeysa ndekete ko rus li nit yàlla mën la mën diggante ak jàpp jàpp léegi nag mu ne moom dafa rus ci loolu mu ne dootul dafa dootul man mukk ci at ndegam loolu àgg na ca moom daal di dem na xam na ne lii sidna Ablaye Ablaye ibn Mas'ud euh, di wax ne soo bëggee tuub dëgg da ngay bàyyi ña nga daan am tax la saa boo leen gisee ñuy pural ci bàkkaar da ngeen bàyyi da nga koy bàyyi fay daan bàyyi ña nga daan am léegi nag mu dem ci ginnaaw kër gi rek nekk xam nga dañ naan waajaay mu noonu ak ceytaan leen ngeen ngiree kii di ko xas rek wér mooy fii xulul mara fa saadamu laa mara wér mooy tawat suñu borom di wax mooy fexe ba say bët say cër yëpp gis gis njaxasoo àdduna léegi nag mu commencé di si jaamu yàlla comme di si kër kër ak sunu borom nekk fa nekk fa gars yi nag ah mu ne waa ji de waa ji jàmbaar ah mu ne benn bés nag ko nat nangam nangam benn bés nag dëkk ba maram yàlla bëgg a wane nitu yàlla ñu mel ak waayam ñu ne ah waa tey ñu dem waa ji ñu daal dem ca ne ko dañoo bëgg nga ñaan ndax ka gis nga mar wi ni mel nangam ak nangam ak lañ ko wax mu daal di mu daal di ne waa mbaax mbaax daal di ñaan suñu borom bañ demee mu daal di bi daal di xool asamaan ubbi ñaari bët daal di yàlla maa ngi nii dara ma su fekkee sama ñaari bët yi ma xooloon sa waa ji baax laa ne jombati naa koo teg bët kenn ndax bëggum ko bëggoon laa ne jombati naa koo teg bët kenn ndax fu ma xoolee daf may ubbi lañ mooy ma gëm ko ngir loole su fekkee nangul nga ma ko yërëm yërëm te tawal leen te daf ne yàlla rab na leen fee dootu leen firaat yi maanaam malaaka ya ahlu badr rab nañ leen ci Tuubaa te dootu leen firaat yi kooku loolu ko xam lu mu doon doon kenn xamul lu mu doon doon fa fa la baylu woon xaal ja beref fii ñu def armée bay beref bay beref bi kii mu def ko jal jal jal bu mag daal di koy def jal feel jal feel daal di góor ñi seen ab jal nga ne jigéen ñi seen ab jal nga ne noonu mu waxoon ci teeni njaareen bi foofu la ko njëkk kaw waxe dugub jëyit jëm fa njëkk a baylu avant ñu fay def garab bañ defee dugub jëm ba bojj ko ba nopp ba mu tiimee kaf bi maa ngi dañ koy natt ci àndaar ak ak ak ay kii ay ay mat mat waaye daal ba mu tiimee ca dugub ja daf ne ruu yi ma sama borom wax ak man de nii la tool xaw ma na lu dugub ja toll bis bu matee rek kon kon fi ñu bay dugub ji fi ñuy def armée la bëgg wax daanañ fi bay tey jii xool armée bi man daana mos naa waaxu ba ak si foofu wax ne danañ dem diir danañ dem danañ mas dem diir danañ mas dem diir ba ba léegi ngeen di romb fa ndar nit da ko dana ko romb fii ci dëkk dëkk bi am mag ma ko mag ma ko doon wax naan bàkki loolu gàtt fan fekk foofu la ko xanaa loolu gàtt fan mu gàtt fan du fekkee nag yaa yàqu yàqu dem waaye loolu mag ñi dégg nañ ko ci moom ak xaalis boobu suul la woon euh, euh, euh, sëñ ma ndumbe xambaat te mu ne ko amul nañ doxal ñu dem nga wax nga foo denc xaalis ndax ndax yëg na ne yëg na ne xaalis baa ngi barab boo xam ne bëggul mu nekk fekk sëñ ma ndumbe indi ko ba àgg si fa mu ko denc dañ ko sulli ko daal di koy teg traat jànn ko demal ba ca nga suul mu dem ba sori lool mu denc kon kon dama bëgg wax ne wan na nit ñi zaahir war na nit baati jëflante nag ñoom ci wet bu ne mag ñooñu nag dañoo gis karaamay sëñ Tuubaa yooyu loolu nag dana dimbale nit niñ gisee woon weer wa yonent bi xaroon waaye ko amul tawfeex doo ko gëm te kat lii wax lépp am na ñu ko dund te ñooñu taxu ñu topp sëriñ sëriñ bi kon nag ñu nit buñ toogee ba suñ jonn tey ñu xam ne loolu yëpp weesu la ñun day gis nañ mag ña amoon nañ ca lañ amoon ci sëñ Tuubaa te may sëñ Tuubaa yooyee jógewu fi tey jii la fi gën a magi magi sëñ Tuubaa yooye tey ji la fi gën a tey lañ ko doon liggéey liggéeyale yàqu mag neen gërëm ñu aljanna nopp nopp fi ne fi ne ku fi jógee dem aljanna aljanna kër kër loo fa ne waaye ndono yi garaat yi daraja yi nga xam ne dañ koy takkale góor yàlla yi ñu ngi fii mu ngi mel ni maire bi ñu fal tey jël loolu ñu laxas digg ni laxas ko mi ngi mel ni président bi ñu fal tey jël caq or boobu laari ko koy gàll ne ko yaa yaa yaa yaa nekk ci commissariat yi ak ñëpp ñëpp àttekat yaa nekk seen kaw noonu rek la mel ku fi nekkal yàlla yàlla jël la joxoon teg la jamono boobu yaay borom jamono sëñ Tuubaa nag li ko yàlla dimbalee mooy keneen dafa jub dikkaat ku mel ni sëñ Tuubaa woote waat ni mu woote am li loolu dafa jeex jeex boo gisee ila yaqaat la maanaam yokk wala yokk ak mooy loolu la parce que keneen dootu fi ñëw woote ni mu woote kan kan moo fi ñëw ci daje ak tubaab tubaab yi jeex na bu njëkk ba ma ko daan dama daan wax ne xët xënañ volontaire yi xët xët xën volontaire yi lépp jeex na léegi léegi la fa amul dootu fi amati ku ñu jàpp di la yóbbu ci géej gi ku ñu jàpp di la di la sol ku ñu jàpp di la exilé loolu jeex na te loola nag ca la amee li mu am kon kay dëgg la ne li mu am ku defut loola doo mën a am lii yàlla may ko mu def ko ba am li mu am waaye loolu yépp soo jëlee sëñ Tuubaa bi xëy na ma wax baatin ndax baatin kenn xamul waaye soo ko jàngatee ci ci wet googu nag muy Xaadimu Rasuul muy daraja wiraasa ah muy al insaanu kaamil bi kooku moo lay joxaat kan kan mooy ka yónni bi tànnoon ci ësël ka xam ne kenn tànniwu ko fii ci kaw suuf sëñ Tuubaa wuñ ko ci kaw suuf fi ngay déggee bayitam yi nga xam ne Rasulullah mi ngi lay kaw ni xadimahu wa yàlla yonent bi sàkku na ci suñu borom kañ la yonent bi sàkk daanaka wax naan kañ la yonent bi def demande teg ne ko dama bëgg xaadimu rasul mii nekk sama xaadim te sëñ Tuubaa daana wax mas naa wax sëñ mu ci njaareem doon diggante bañ suñu diggante dafa yàgg dama bëgg ñu waxtaan tey jii lu fi xaj waxtaan sëñ Mudu Lasin da ko sëñ sëñ Musaa sëñ Abdu Xaadim laaj moo tax sëñ Musaa sëñ Abdu Xaadim ci ñu dimbale nit ñi dafa parce que da daan dem di enregistré di ci sonn wax sëñ Modou Racine yitte la daan doon def sëñ Touba mu ko bind ku jàmbaare la ku baax la xool leen sëñ Moussa Ka man sëñ Moussa Ka moom man dama ne man sëñ Moussa Ka moom la yéem sëñ Moussa Ka ku ma yéem la fi ni nii koo dem ñu naan dañuy màggalal du seex bu mën a doon bala ñoo tàmbalee wax moom dañuy sëñ Moussa Ka nee na te mu ne ab seex la waaye sëñ Touba ko neexoon sëñ Touba ko ñoroon kenn du la xam ci xam-xam kenn du la gëm di gëm kenn kenn maanaam xoolal loolu rek maanaam boo ko nattale ak suñu jamonoy léegi ak ak ak ak ak ngal doole bambara moroom kàccoor daaxi dugal kenn du ko tarngal ba coor mooy lii nuy wax ci ba ak ba mu koy wax nga xam ne booba lépp ngi fi te jamono mel nii ba mu koy wax ah? sëñ Tuubaa du seen du seen du seen makkandoo du seen maas xool ba mu koy xañ xañ kenn xamu xañ mooy ba muy way ñu jaajam waaye dafa naan li ma ci gën a yéem bokk na ci bëy bi ma ci gën a yéem ca mul kenn mën koon ngay fanaan fa ma jaar malaaka yi jëbaru wër la far bi sa mbaal mën a koo bàkkee loolu waxuma la aras waxuma la kursi waaye ci mëlëkoon ngay dem di fanaan màjjal fanaan màjjal mooy li Baay Faal di def def naan nii accaleen barkeelu leen ci cant kenn nangam nee na leen defal jaam ñi foofu la ko dugutee ci suñu borom malaaka yi war ko di sàmbal suñu borom woowu tagg wuri woowu tagg wuri kenn xam nga lu tamu kenn la ci ñoom te bokkut ci mag ñi bokkut ci mag yi mbàkki kajoor mbàkki kajoor déedéet bàyyam moo ca bokk ndax bàyyam jàngal na maam Seydi Hadji Malick Si jàngal na ko mag ñi dañoo baaxoo xamoon seen bopp bëri xam-xam lool sëñ Daam Abdourahmane nii magum daara la nitum taam la kum bankal umam yii caaxaan na ci te keroog ba leen sëñ Tuubaa naan Rasulullaay dikk na fi leen jàng wax ne joxe sa bopp xew daf ne leen saafahani Rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam wax kon kon Rasulullah ndegam Rasulullah yi ñëw kër Sëñ Tuubaa wax ko ne ko jaaral fii kon Sëñ Tuubaa ndigal la loolu bati loolu njëkk ne bati mu daal di wax ne ku te booba seex xew booba seex kon kon maam Seex Ibra Faal ñëwee daal di wan nit ñi am li nga bëgg dafa am lu nekk ci moom daa am bët bët bëtu baati boobu ci la ci Sëñ Tuubaa moo tax mu jaral ko nag te moom am ndigalul yàlla ci Sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibra Fall yàlla moo ko jox ndigal ci sëñ Tuubaa ndax moo ko wax ne ko topp topp gëstu diw sàngam soo demee li des ci sama ngërëm sama diggante ca ca moom la waaw léegi nag soo dikkee ci nit di ko jëfal da ngay xool li nga xam ne xam nga ne moo gën a gaaw ci joxe ngërëm ci moom sëñ Tuubaa war naa samp xeram war naa samp këram war naa def da taxam war naa def nag war naa takkam néeg léegi nag yow nga defee ko foofu moom du ko def loolu rek la mooy nga dem faril ko fépp fépp ba nga xam ne nam tali digganteem ak borom képp la taw bu ci amoon weeri këram bant du fa daay ëtt ba du tilib ay dara du tilib tilib na kër ga meloon bu fa tabiwaatee noonu lay mel ndax ñi fi nekk dañuy xool na mu war a mel ak nañ na sëñ Tuubaa bëgg mel gis nga bale ba mu leen yebalee ca maam xawaat ma jaxante kala bañ koy defaral toolam mu ne taalibe sëñ Tuubaa boo leen gisee da ngay defe ne ñoo feebar nee na bu ñuy déey dañuy mel ni ñoo xam ne ñi dañuy dañuy bu ñuy wax dañuy mel ni ñuy déey waaye nee na ceeb bu ñu duggee ci sa tool neen dañuy mel ni xare bu tàkk loolu lu ko dàq bu guddee ñuy jaamu yàlla te pourtant seen jaamu yàlla googee ak seen seen ndaam googee seen doomi soxna googee fa lañ ne ko ñu kon sëkk seen bëtam jëmbali sëñ bi di ko su jootal di ko liggéeyal loolu moo tax sëñ Tuubaa ñaan na ci ci wàllu ko may liggéeyal ci anam bu ne ku may liggéeyal ku may liggéeyal ku may liggéeyal moom it am liggéeykat la ñu ngi sant baax ñu ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp di wax ne sëñ Tuubaa bu ñu ko fanaanoon waxtaane bu bët set di rek lay mel du doy lu ci ni dégg damay dégg sëñ Moussa naan taalibi murid yi moom buñ jegee nee na boo leen sëñ Tuubaa ci yàlla yàlla yi dañuy gën a jege di di gën a jege si kooku nag kon kon noonu rek la mel waaye bëggoon nañ am ak jot jot mu gën a yaatu bañ gën a kii ci maam jaar waaye far rek noonu waaye kon ñi ci des bu dikkee danañ ci gën a yaatal incha allah ñi ngi sant yàlla bu baax waxtu wi daaw ñëwoon nañ fi ànd ak yéen seen cant gi waxtu wii ren ñu àndaat gi jàppoon naa ne sax duñ fi am une heure de temps waaye yaakaar naa far mujj na yaakaar naa am une heure de temps ndax waxtaan waxtaan ci sëñ ba noonu la mel guddi gi day dem te doo ko te léegi quatrième bi sat sat dëgg yàlla kon danañ mën a jox ñi ci des ñu barkeel yàlla nañu fekke diwoon yàlla nañ wér yàlla nañu am xaalis yàlla nañ ñëpp ñu jubóog seen i kilifa soxna yi yàlla nañ jubóog seen i borom kër borom kër yi yàlla nañ jubóog seen i soxna yàlla na yàlla yombal jamono yàlla na yàlla féexal lépp lépp suñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool tëwéer yàlla bu nu ruus ci kanam seen Tuubaa li ñu jëf ak jéem yàlla na ko na ci